docteur Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. Oh, voilà yow tey euh, nga bokk ci ñu jiite fédération euh, syndicat de la santé ñu duppee ko F2S euh, tey ñoom ñuy artu di xamle ne bu bu jëmmi jamono dinañu daal di grève ngir nag ñu daal di xoolaat seen plateforme revendicative ñu bëggoon a xam lu xew exactement. waaw li xew moo di euh, ëpp na ay attends ñu presque ay trois ans quatre ans ñu ngi déposé ay préavis déposé ay plateforme de handicapés mais dafa mel ni gouvernement bi daf ñuy soofantal soofantal boobu nag moo tax ba euh, depuis 2016 euh, amoon na ay négociation yu ñu amoon parce que boobu la gouvernement bi ci biir fonction publique bi ñu nekk ne woon gis na ni daal ni ñuy defee payoor gi ak ni koy séddalee xaalisu réew mi mu jël benn cabinet parce que ñu doon ko waxoon loolu mais gëmu ko bi ñu defee étude li ñu leen doon wax ñu gis sax lu jéggi dayoo loolu leen doon wax. Mhm. gis ñi da ngay gis koo xam ne tey jii am nga bac plus six ah wala bac wala bac plus cinq wala bac plus sept nga gis koo xam ne li mën laa fay. Mhm. comme ba ba fan yii ñu toog ñu ne dañuy régler rémunération yi bi ñu defee étude yooyu dañu ne woon ñetti secteurs ñoo ci gënoon faible. Mhm. muy santé muy éducation muy agriculture ak élevage mais bi ñu defee rek dañoo gis ay secteurs ñu yokkal leen joxe jox ay nit lu baax la loolu moom xam naa ne lu baax la mais bi ñu leen joxee seen i indemnité ah yokkal leen gis nañ li leen yokkal sax ëpp na sax ñi nga xam ne seen salaire sax mi ngi foofu mm-hmm. mais ñu ne bu état waxee ni dafa war a corriger booy corriger tey doo créer disparité mm-hmm. gaa baax nañu jox ñooñu mais lañu jox ñooñu pourquoi joxuñu ko ñeneen ñi dama la jox exemple indemnité de logement léegi déggatoo benn syndicat buy kaas naan nañ ko jox indemnité de logement ba mu des ñun ñoom kay dañ naan indemnité de logement yi leen jox cent mille dafa tuuti. yéen ak benn benn agent de santé. waaw hmm. non bëgguma citer sax parce que mérité nañ ko cent mille francs sax laa la wax. Hmm. yow moom xam nga ni. ah mënoo ci am ñaari benn benn chambre ak ak ak salon. mënoo ko ci am. Hmm. fii Dakar gi waaw mais ñun amuñu. alors que ñun heure bu nekk lañ ñuy yee. heure bu nekk lañ ñuy yee parce que am na ay urgence. parce yow nga bëgg wax ne yow yow yow lan moo tax ñun ñu ne sant du am du de logement. waxuma rek am bu doon def tey critère bu valable rek bu ñuy am ñun ñoo war a njëkk am. Mhm. mais kenn joxuñu sax indemnité de logement tey jii amuñu benn indemnité loolu moo ñu sonal. sur sa kese kese kese kese kese de base la ñu yor amuñu indemnité benn indemnité la ñu am muy indemnité de risque c'est cinquante mille francs la. Mhm. cinquante mille francs yooyu sax boo demee recette dañ koy dindi. alors que boo booy dem retraite da nga feebar yu bëri amuñu beneen indemnité da gis seetal boo xam ne dina la amal six indemnité wala sept indemnité yi dama ne régime indemnitaire yi ci boppam tey jii am na indemnité yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy jox doomu aadama tey jii booy xool ñun amuñu benn indemnité dans notre corps bu weesoo indemnité de risque boobu mhm. ak suggestion te suggestion sax ñëpp ko am mhm. indemnité de risque bi nga xam ne ñoom ñëpp a ko bokk moom dong la ñu am te cinquante mille la te cinquante mille yooyu li gën a grave mooy boo demee retraite sax dañ koy dindi. Mhm. alors que da ngay gis yeneen corps yoo xam ne tey jii ëppale wuñ ñu dara am nañ ba six ba ay sept indemnité ñu am ko loolu moom moo indi différence salaire bi mais du salaire indiciaire parce que salaire indiciaire boo ko jëlee ba ci président de la république li nga xam ne moom la moom bi wax moom koy fay maa ngi moom ñoo ci yem plan plan niveau ak plan wu plan wu grade. Mhm. li seule différence rek mooy indemnité yi mooy am. Mhm. mais ñun bu ñu amul indemnité ñu jox ñeneen ñi indemnité seen salaire da leen di dépassé moo tax ngay gis ñun ñun ñun ñun ñu ciy gën a ëppale ay presque trois cent mille nga leen di fay xëy na nag suñu métier barkeel na. Mhm. moo tax loo ci gis kenn du toog benn place parce que boo toogee sa benn structure rek di xaar sa salaire doo dund. loolu moo indi loolu moo indi jafe-jafe yi. donc tey jii bu dee da nga yox ñeneen indemnité. xoolal noo mën a équilibré parce que nit mënul jàng. am bac plus six am bac plus sept wala am bac plus cinq nga gis koo xam ni dans la fonction publique niveau baccalauréat kese la. Mhm. kooku kooku kooku ëppale ko salaire. dafay dafay dafay tey xel daal. d'accord loolu il ñu corriger ko. d'accord ngeen yëglu euh, ñu bëggoon a xam seen plan d'action nan lay demee. plan d'action bi daal grève mi ngi ci. boo xam ni booru la vingt quatre vingt cinq ak vingt six koy def. Mhm. am na marche bu ñu prévoir avant loolu. mais mhm. dañ ni xam nga fi mu toll nii euh, bii yoon dafa am stratégie bu bees bu ñu taxawal. Mm, stratégie bu bees mooy groupe yi dañuy dem ci hôpitaux yi. dajale personnel bi yëpp waxante ak ñoom recueillir seen leneen xam nga ñooñu dina fekk ne yow préparé nga say troupe. Mhm. ba heure boo décrété moo door rek ñoom ñëpp dañ ñëw. donc prévoir nañ quatre assemblée général fii ci Dakar def nañ ci benn à Dakar ah dinañ defaa yeneen trois dinañ dem ci biir région yi ñaari mhm. région lañ ciblé Tambacounda ak Diourbel incha allah dinañ fa dem loolu lépp bu ñu ko defee ba dina fekk ni bu ñuy jeexal tournée yi. dina fekk ni heure marché bi jot ñu def marché bu mag bu paree ci marché bi nag ñu daal cee enchaîner ak grève bi. Mhm. maintenant bu état réagirul ñu yokkaat rek comme dose la rek. xam nga malade moom boo ko waree opérer. ñu uh-huh. ut sa fluotan nga am sa dose boo def. malade bi nelawul da ngay augmenter dose bi rek pour mu mën a nelaw. boo bi ko rek ñu dóoraat dellu si si njeexital mais avant boobu monsieur hmm. Seck tey hmm. euh, moment bi ngeen jóg pour yuuxu parce que ah. gis nañ ne ñu bëri hmm. ñoo ngi ñaxtu jamono ji ah. mu am lu mu ah. tombel ndax looloo ko waral mooy déclique bi maanaam euh, sargal gi ñu sargal lion yi parce que gis nañ ku wax joxe leen exemple. déedéet déedéet xam nga boo xoolee ci archive mën naa la envoyer lettre 2017 laa la wax. xam nga dama ne bi bi ñuy def système de rémunération faire ñu nekk négociation mhm. ak ay revendication mhm. état ne mënul yokk dara tant que ah defuñu étude parce que dafa gisoon ne day yokk rek mais day créer ay disparité mhm. ñu ne d'accord mais 2017 ak 2016 la defoon la defoon étude bi 2017 ñu indil ñu étude bi résultat yi mais depuis boobu ba tey léegi mat quatre ans boobu ba tey ñu ngi wax ñu ngi bind xam nga mais bu ñu toogee ñu ne ñu ne ñu ne xaalisu pétrole bi dugg na. Mhm. le président de la république lui-même taxaw ci télé ak rajo daal ne bu yeboo syndicat yi bañ a wax. duñu jox kenn dërëm parce que am na yeneen di priorité. Mhm. ñu noppi yi dara. nañu topp ci yàgg ci biir gouvernement yi. Mhm. ministère de l' agriculture ci boppam. jël agent agriculture yi. mais loolu ñu am de. parce que ñoom seen salaire baaxul woon. ñi nga xam ne ñooy am fonctionnaire hiérarchie bee laa la wax. am ay deux mille indemnités. ñeneen ñi am ba quatre cent mille. ñu gis corps inspecteur du travail ñu passé les mêmes indemnités. Mhm. ñu toogaat gis ay euh, euh, ministère de mines Omar Sarr. Mhm. lu mu defal ay ay nitam. mais ñu ne ñun ci ban gouvernement la nekk ñun président moo taxaw mu ne jarul ngeen noppi leen. Mhm. du ma jox kenn. ba pare ñu gis gisaat ay xaalis ay quatre cent mille ñu koy séddale. mais amul rapport ak lions yi. lions yi bu leen doon jox cent millions man damay applaudir de doy mais. moi sportif. je le président la commission médicale de l'AS Pikine chaque match chaque match maa ngi ci banc bi te dirigeant laa du football donc jàppale de ba deux mai parce que moi je suis un sportif. donc loolu du loolu la ñuy wax problème bi nekkul foofu ñun comparé wu ak lion yi. Mhm. Lions yi la nga leen jox sax pour man Sadio Mané mii jël jël defe naa ne cinquante millions ko. tiitalu ko kay. Kalidou Koulibaly cinquante millions tiitalu ko. ñooñu dañoo am seen xaalis du loolu mooy problème bi. Mm-hmm. problème bi moo di dëkk bi moo amatul justice ak équité. damay lay ñëw sama mbiir ministère da nga fay gis koo xam ne politique rek lay liggéeyam. Mm-hmm. ñu ñëw signéel ko contrat fay ko salaire boo xam ne mat na cinq fois suñu salaire. te duñu liggéey dara xam nga dégg nga sànq ma lay wax naan la dans la fonction publique ñun huit mille kese la. Mm-hmm. mais ñi liggéey ci agent de santé xam nga nu mu toll. nan la wax liggéey gis bi élection yi bëgg a jub si liñ ci recruter ëpp na juróomi téeméer ci ay li may wax ci rajo laa koy waxee. Mhm. te balaa mu doon neex président enquêté ci ministère de la santé ñu wax la ñu ni signé contrat ak ñan la ñu ci bëri qualification boo xam ne soxla nañ ci secteur te ay salaire yu nganda nganda nganda la leen jox parce que ku nekk war nañ la jox xaalis pour nga dem campagne al leen naan que loolu la. Mhm. ñu naan la man CTO CTO laa nekk deux mois ngi ni suñu scanner panne avant campagne électorale bi la woon moment bi scanner bi panne Diouf woo jox ko cinquante millions moom moo ko wax. te ñun suñu scanner boobu ba tey doxul. doy na waar est que est ce ñoo fi nekk rek ñu leen di ñu leen di ceebal ñun ñuy toog alors que ñoom ba di lu ñu am lamine rek doon am dañu ëpp lamine. et justement si si si si xaalis googule ñi nga xam ne ñooy travailleurs sociaux yi te bokk tey ci seen fédération fu ñu mujj ak euh, prime ak indemnité yi ñu leen ameel. non mooy mooy li ma la wax rek xam nga boo nee dugal nañ cent cinq milliards. cent cent cinq milliards ci secteur santé. Hmm. bokk la milliards yi ñu wax de xaalis boobu ngeen war laaj Diouf Sarr fan la ko dugal. xam nga dañ ne woon dañ ci jënd ay matériel ay scanner man scanner bi paan noonu nekk suñu hôpital 2012 la woon. Mhm. Modou Diagne Sada moo nu ko mayoon temps yooyu danoon toog scanner bi ñu ko yor baaxul woon mu jël benn scanner nekkoon Touba ñëw indil ñu ko. Mhm. donc fan dugal xaalis bi cest dire foofu ngeen war a wax mënoo toog rek xam nga toog nañ ci benn jour moi je l'ai reproché à votre collègue Madiambal Diagne. Mhm. il a lancé parce que ñu bëri dañoo ni le médecin là qui était li mu doon wax daf ko daf ko daf ko tëb rek wax ko. Mhm, docteur Babacar Madiambal Diagne wax loolu la wax daf ko répété. Mhm. mais Madiambal da ngeen dina waxoon. Mhm. mais wax jooju dañ ko doon defoon parce que on voudrait détruire un adversaire politique ou bien on voulait éclairer les Sénégalais Madiambal il est très proche du président la République. mais pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout pour éclairer ça on l'a en convoqué à la. olof bi waaw. bi ko convoqué bi ko euh, section de recherche du mois de la gendarmerie. Mm. bëgguñu éclairer parce que yaakaar nañu bu ñu éclairer dugg ci kàmb milliards nga pour benn maladie benn feebar milliards nan la wax fu ñu ko dugal d'accord bambu laa dans secteur bambu laa laa la wax bambu d'accord tey yéen a ngi yëglu comme ni ma ko waxee tout à bu ngeen demee tey ba àgg ci grève lan la euh, sénégalais yi di xaar euh, ci wàllum wér gu yaram tey ji ci njeexital xam nga tax man la gis nga même yëglu bii ñu def préavis de grève bi ñu ko déposé ba ministère fonction publique tontu ñu délai délai préavis passé na ça veut dire que suba bu ñu neexoon ñu tëj hôpitaux yi ten ni bu ñu grève xam nga kañ leen prévoir grève le vingt quatre mars diggante le vingt quatre mars ñaata fan la ëppul weer du topp mm-hmm. est-ce que si on est en face d'un gouvernement responsable de réagir ça veut dire que ñu ngi xalaat maladie bu ñu neexoon suba ñu grève la loi suba suba suba laa wax ñu tëj hôpitaux yi mais ñu ko parce que on pense être des responsables ñu ne depuis boobu ba comme dañuy yaru dañuy xalaat maladie moo tax defe naa ñu yab ñu. mais ndax am na réaction boobu ak tey. waaw benn réaction dañoo tal. Ah. gars yi fu mu toll nii ñu ngi préparé dafa mel ni ñu préparé seen dossier. ah ku ci nekk yaa ngay waajal sa bopp daal parce que les autorités. Mm-hmm. parce que temps yi dafa am ay ci lu nekkoon ci négociation. Mm-hmm. mooy reclassement gars yi ak avancement yi. ak li nga xam ne mooy ouverture concours yi. ok lan la ñuy wax. Ah. temps yi de dañ ñu bu kenn jël benn initiative. xaw ma président moo ko wax ministre yi ñu leen bu kenn engagé wu dara. ça veut dire que ñu ngi ci dynamique bu changé gouvernement xëy na. d'accord. mais est-ce que on est la continuité. moi je suis un fonctionnaire même si le ministre est politique. l'administration doit continuer à fonctionner. d'accord. gis naa sax même bu dul loolu kenn. Diouf Sarr mosul am respect ci contrairement à ses prédécesseurs Abdou Fall daawul doxale nii ak ñun Mauritanie Fada mosula doxale nii ak ñun même buñ daawul jox dara joxoon nañu respecté dinaa na toog di waxante ak nit ñi mais yow damaa gisul loo jàng ak foo toll ñu ngay diriger ñëpp ñoo la ëpp njàng ñoo la ëpp xam-xam ba pare mënoo leen respecté pour lan fu mu juddoo far la mhm. juddoo dafa nekk lu nekkul ñun Dakar gi lañ juddoo bu dee ci mbeex mi rek xam nañ ko dañuy dem maare bu géej gi kaayaa ñu toog gënuñoo <laughs> xam loolu d'accord lan la ëppale <laughs> bay bay bay bay bay rëy dem dem Alexandrie rek jàng fa Alexandrie Caire ah Alexandrie Égypte lan la am leneen dafa ñoo pale leen ba ñu ba ñu ba ñu fontoo wala kon daal problème bi yow Diouf Sarr la mais c'est lui non c'est non dama lay wax le gars là il n'a aucune culture de l'administration d'accord xam nga malheureusement ils n'ont jamais été des fonctionnaires gis nga le le le dans notre administration actuelle ça c'est depuis Ablaye Wade olof bi waay. ab ma ne loolu depuis Ablaye Wade la. Mm-hmm. gis nga bi si Diouf mm-hmm. lu mu bon bon. on avait des fonctionnaires qui connaissaient le fonctionnement de l'administration. D'accord. mais on nous a en dañu dañu indil ay politique. Mm-hmm. ba léegi administration dañ ko dañ ko politiser ko. d'accord d'accord administration moo amatul ministre yi administration. et il en fait partie courtoisie administrative mooy nit bu la bindee lettre sax nga tontu ko tontu ni ko accusé naa réception mhm. ah mooy courtoisie quoi d'accord mais xam ko parce que informel lañ ko jëlee indi ko foofu excusez-moi madame été un peu dur avec les personnes mais c'est le même traitement qu'il a pour les agents de la santé amul benn respect ci agent de d'accord euh, docteur Cheikh euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup